ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha daayira Muxaddamatul Xidma naka jekk depuis jamonoy Serigne Saliou Mbacké la ñu tàmbali di dundal guddi gàmm fii ci jumaa ji euh, kilifa yi nga xam ne ñoo fi jaar yeesal ko waaye rawatina nag Cheikh Mouhamadul Mountakha nga xam ne jëfam moo ci jiitu ci jëf yi waaye ndigalam tamit da ko fesal lool ba noppi daaw mu ñëw def noo xam ne euh, wax dëgg yàlla jëmmal na jataay bi muy ñëw teew ci fajar gi ngir. Euh, euh, mottali ñaan gi tax na nag ñun daayira Moukhaddamatoul ma dafay dakk ni ko sëriñ bi daa defee ci Ceyeen ak Jurbel xam nga ne gàmmu dat yi ñuy tudd ci réew mi ci yi ñuy tàmbali dat yi ñu gis sëriñ bi tudd ko moo moo ci gën a moo ci jiitu ndax xëytu mawlidi nabi min asasi wa xaadili fooqal mun a fi talsasi am nañu wax ne soo ko adatee dafay doon 1882 wala 83 kon moo jiitu yeneen dat yi ngay dégg tax na tamit sëriñ Saliou Mbacke waxoon ne Euh, képp koo xam ne yamale nga guddi gàmmu bis bisu gàmmu gi ak ba ko jiitu ak ba ko mujj xamal ne euh, ku xeluwut nga maanaam koo xam ne amoo xel maanaam képp koo xam ne da ngaa jël bisub gàmmu yamale ko ak bis bi ko jiitu bi ko mujj kon amoo xel kon ñoom fonkoon nañ ko tax na nag sëriñ bi ci boppam ñun biñ gëstoo nan la ko daa defee ci gëstoo ko fu wér ci mag ñi wóor wax nañ ne su guddi gàmmu masaa ñëw dafay def ñetti kuréel kuréelu jës bu mooy bu muxaddimaat ak bunt barsan jiyu te da ko daa eh, tolloole ak fukk ak ñaar xam nga gàmmu mi ngi doon douze rabiul awal fukki fan ak ñaar ci weeru rabiul awal moo tax sëriñ bi wax nañ ne da daa jàng lu fukki kaamil ak ñaar boole kook diwaan yi eh, su noppee ñetti kuréel yi benn bu nekk fukki bayit ak ñaar lay jàng su noppee ki nga xam ne mooy wax buntu barsan jiyu tàmbali eh, bu jàngee benn buntu tëje ko xatri lahuma xabrahul karim bi arfin sasin min salaatin wa taslim fukk ak ñaar waxit allahuma salli wa sallim wa barik alayhi fukk ak ñaar su noppee buntu jës bu jël su noppee mooy bu jël su noppee muxadimaat jël barsan ñëwaat loolu tamit sëriñ bi wax nañ ne moom moo daa jëlal boppam ay ñam di ko ñëw di ko joxe di di di di pompal boppam parfum yi am na bis boo xam ne sax dafa dafa aalu euh, dem yëkkati sendal gu fees dell daanaka di ko cakk-cakk nit ñi bëgg ko cee jàppale mu def tànku neen nanguwu ko ngir di ñëw di ko xëpp ñi nga xam ne ñooy jàng noonu la daa fanaane ba bët set noonu nag lañ koy dundale fii ci jumaa ji ànd ko ak daayira Rawdu Rayaahiin muy lu am solo loo xam ne eh, ni ko sëriñ bi waxe woon tahsimuhu bi sunna sëriñ Saliou ne woon ñu mooy aw yoon wu leer wu tegu ci ci ci ci ci diine moo tax Euh, ñu sàmmonte ci taqale góor ñi ak jigéen ñi sàmmonte ci tamit ak cet gi sàmmonte ci bu baax tamit ak warma ji ci barab bi waaye sàmmonte ci ak ndigal yi ci sëriñ bi digee ci ay tiyaaba te loolu lii tax nga am ko mooy sell xol laylatu mawlidi nabi laylatu maxwi riya bi laylatu maxwi taxa bi wa taxrasi taazumi euh, xëy na euh, nit ñi firi nañ ko ba tey guddi goo xam ne day day far ay bàkkaar di dindi ay sikk di laabal xol ak lim ci diggee ci ku ci dépassé fa kullu man anfaqa fi mawlidi ilmu sharafi maalan bi xayri sharafi wala bi xadari dirami lu xoolal lim ci teg fa innahu kaman xadar yowma unaynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar loolu xam nga faat na boo ci jëlee benn dërëm def ko ci euh, guddi gàmm mel nga ne ku teew xare Unayni wala xare Badar loolu kon lu rëy rëy rëy ngi noonu euh, waaye Serigne Touba it daa ci def noo xam ne wax na ko ba noppi daa ko def wax ne buñ jëlee ndox taaj ko ci digg bi buñ noppee ñu tefli ci nee na ndox moomu képp koo xam ne wa in a maa in quri mawlidi xayral basari fa shurbu bil mutaari yakufu kaydal marxami ndox moomu ku ci naan day saafara jàngoro di faje aajo di fekk tamit pexey saytaane ak pexey noonu loolu kon njëriñ yi ci dajaral kenn xamul nu mu toll moo tax nag sagam fii mooy xolu dëkk bi te fi la murit yëpp di roy moo tax ñu ñu jëlee ni ko ni ko sëriñ bi daa defee ñu defee ko noonu tamit képp ku ku bëgg tamit sëriñ bi bëgg ci guddi ga ngay dundal yaakaar naa fexe ba dàkk nam ko daa defee nga defee ko ni kooku day walaabal kon ci murid yi gàmm ci dëkk bi ak kër sëriñ Tuubaa yi ci àddina bi yëpp ñu fexe ba defee ko noonu ko sëriñ bi daa defee ndax sëriñ bi kat ku ko gën a xam mbégum yonente bi amut kon nam ko daa defee noonu mooy nii bégal yonente bi noonu lañ ko fas yéenee dundale fii incha allah ci guddi gàmm gi ànd ko ak bokki taalibe bari bëri na ñoo xam ne léegi dañuy jógee ci dëkk yu bëri di ñëw di gàmmu see fii ngir yaakaaru gum yaakaaru